bi junoo bi comme seeni bàkkaar yi bu ngeen defee bàkkaar mooy leen di mbugal bal li am ba des kay ay nit dong ngeen mimman xalaqa li nga xam ne suñu borom daf leen sàkk yaxfiru man yasa suñu borom mooy jéggal ku ko neex wa yuazibu man yasa mooy mbugal ku ko neex walillaahi mulku samawaati wal ardi yàlla moom moom nguuru asmaan ak suuf wama baynahuma ak li nekk diggante asmaan ak suuf wa ilahil masir si mbir yëpp nag ci suñu borom lay delluwaat yaa ahlal kitaabi yéen yahuud ak nasaraan yi maa ñi xam ne amoon nañ téere waxoon naa ko ci gannaaw xad jaakum di kenn leen rusuluna suñu yonent yu bayyinu muy leeral lakum ñeel leen ala fatratin ci ay diggante diggante boo xam ne nag yonentu ñëwagul mooy diggante bi yonentu demee beneen yonentu ñëwagul ci diggante bi min rusuli si yonent yi wa an taqulu ngeen di wax naan maa jaa ana diggante bi nga xam ne yentu ñëwul benn yentu dem na beneen yentu ñëwul ngeen naan maa jaa ana min bashirin benn yenentu ñëwul ci ñun koo xam ne daf ñuy di bigal wala mu ñuy xupp wala nasir wala koo xam ne daf ñuy xupp gisuñ benn wallaahu yàlla ala kulli shay'in ci lépp xadiirun aji mën la ko suñu borom mën na lépp dara tëw ko wa is qaala ba mu waxee Moussa Moussa li qawmihi ci ay gaayam yaa qawmi yéen samay gaay uskuru fàttaliku leen ni'matallaahi aleykum xewla suñu borom is jaala ba mu defee fiikum si yéen al anbiya ay yenentu mu yéen si seen biir ay yenentu wa jaala mu def wa jaalakum mu def leen mulukan ngeen di ay buur mu tànn seen ay buur wa aataakum mu jox leen maalam yu'ta loo xam ne joxu ko ahadun min al alamin loo xam ne mosu ko jox kenn ci kaw suuf yaa xaw mi yéen samay gaay udxulu dugg leen al ardal muqaddasa suuf bu laab bi bu sell bi muy masjidul aqsa allati kataballaahu aleykum mi nga xam ne farataal na ko si yéen wala tartaddu bu leen dëdd wane ginnaaw bu leen murtad ala adbaarikum ngeen wane ginnaaw seen diina fa fatanqalibu xaasirin boo leen ko defee da di perte yow ma doo leen fa am dara xaalu ñu wax yaa Muusa yow Muusa inna fiiha nekk na si biir dëkk ba muy masjidul xawman na ay gaa yoo xam ne dañoo mën a tooñ dañoo të inna lan nadxulaha ñu daal duñ dugg si dëkk ba xataa yaxruju minha ba ñoom kere ñu génn dëkk ba buñ génnu laa ñu duñ dugg fa in yaxruju minha bu dee ñoom génn nañ dëkk ba fa inna daaxiluun boobaa daal dañ dugg si biir dëkk ba xaala moo wax ne ñaari waay ñi nga xam ne àndoon nañu gaa yi nga xam ne ba ñu dugg si biir dëkk ba min na yaxaafuuna anama allahu ñi nga xam ne ñooy ragal si xewal bi nga xam ne seen borom xewal na leen ko mooy xewal gëm yàlla alayhim ci ñoom udxulu dugg leen ci albaaba jaare ci bunt ba fa isa daqaltumuuhu boo leen duggee jaar ci bunt ba fa innakumul xaalibuun boobaa da yéenay gañe wa alallaahi fatawakkalu wékkur leen seen boroom in kuntum mu'minin bu dee nag gëm ngeen seen borom lañu wax sax bu dee gëm ngeen yàlla wéeru leen seen seen borom ngeen dugg ci dëkk ba